والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم كم أسباركم تي حديث اليوم مي حديث دي زور بن إني لون تي دا فاي واخ لو خامتاني لو أم صلاة مي حق الجاري مي أق دكندو مو نيك لو خامتاني نيب تي ولا باي خيل ñu jëlé ci hadith bi yeenent bi sallallahu alayhi man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fala yu'di jaarahu képp ku gëm yàlla sunu borom subhaanahu wa taala gëm bésu penc ne ëllëg dina taxaw yi ñëpp dina taxaw yàlla xisaab ñëpp ñu war a dugg safara dugg safara ñu war a dugg àjj na dugg àjjana yal nañu yàlla booy dugal dugal ñu àjjana nee na bu boobaa dooloor lor ki nga xamante ne mooy sa dëkkandoo dëkkandoo nag mooy ki nga xamante ne mën naa wax ne yéen bokk kër mën naa wax ni tamit yéen a bokk benn koñ bi ngeen di dundee dëkkandoo nag buñ koy wax il faut nga jox ko àqam àq bi nga koy jox mooy parfois yaa ngi dëkk sa dëkkandoo nga am xew boo xamante ne ak xew bu mën a doon nga jël sa musique taal si koñ bi yokk ba mu sës sa àq dëkkandoo bi mi ngi feebar wala boppam mi ngi metti nga koy lor ci guddi gi du xam nu mu la koy waxee boobu boobaa yow fonkoo li nga xamante ne mooy àq dëkkandoo mën ngaa jël tamit li nga xamante ne mooy fóotitu ndox wala ay waasintóor ndox yu bon yooyu nga xamante ne kenn mënu koo tudd nga tuur ko ci ndox bi fi nga xamante ne fi la ñëpp di jaar ndox boobu su demee ba nga xam wow na poussière bi bu jugee li si jug yëpp poson lay doon te bu boobaa ku ko noyyi feebar bu mu la jox bu boobaa yow li nga xamante ne yaa yore xàqam te kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu wax rek war nañ cee bàyyi xel comme ni ma la ko waxee woon. mën nga koo bañ a lor tamit am na ñoo xam dañuy lor seen ak seen dëkkandoo ci li nga xamante ne mooy wax ju ñaaw naan kii li ma ko xamal kii li ma ko xamal fekk ne xamaloo ko dara bëgg li nga xamante ne mooy lan tuumaal ko ba képp ku ko gis di ko maytu te dafa am benn waykatu arab bu wax ne inna charra naasi yi yakshiru li xiina yalqaani wa in xibtu shatam ki gën a bon si nit ñi mooy ki nga xamante ne suñ jàkkaarloo mu may reetaan te su ma fa jógee mu saaga ma wara mu jëm wara mu wax lu bon ñu ngi wax sax naan gaynde dëgg bu la bëggee lekk dalay reetaan kon loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax xam ne dëkkandoo lu am solo la ki ngay bokk ak oto sax kooku mën naa wax ne sa dëkkandoo la ci oto bi war ngaa bàyyi xel war nga boo toogee ci place bi nga bañ a toog mel ni sa kër la ne xaaf si biir place bi di ko déranger bu boobaa yaa ngi jël li nga xamante ne mooy xàqam te ëllëg yàlla dina la ko laaj te mën na laa bañ a teree dugal dugal àjjana te yonent bi sallallahu ngi wax ci benn xadis ba tey jii سكام سي حديث دي زورا نيك ميغي واخ ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت انه سيورثني يانت بي نينا جبريل مستا دنج ديما دنك ساي واتي سي مان ديما دنك سي دكندو بما فوغني مان يانت بي صلى الله عليه وسلم سوما في جوغي جبريل ميغا كي سما دكندو مامي دوندو نينا جبريل مستا دنج ساي واتي ديكو جوخ القران ولا مو نيو ديكو زياره دينا كو كونساي ديكو دنك سي والا ليغا خامتاني موي اكو دكندو yenenbi sallallahu alayhi wasallam demna ba fogné man mi suma fi jógee man mustafa sallallahu alayhi wasallam sama dëkkandoo ci bopam momay dondo kon dëkkandoo lu am solo la ñu war ci bàyyi xel bu baaxa baax te yàlla mi ngi wax ci alqur'ane wa waabudullaha jamulen yàlla wala tushriku bihi shay'an te bu len ko bokal ak dara wa bil walidayni ihsanan ta ngeen rafetal jëme ci seen ñaari wayjur lu mu ci tek wa bi qurba nga xamantene moy sa dëkkandoo kon dal dëkkandoo nek na lo xamantene lu am solo la il faut ñu bàyyi ci xel suñu bëggee am dund goo xamante ne dund gu dal la ndax nit ki boo amee fitna sa kër kii njëkk teew balaa say mbokk di ñëw di jóge ay dëkk dëkk sa dëkkandoo mooy njëkk ñëw bu dee lakk la laa qadarallah yàlla bu ko yàlla dogal bu amee ci kër gi say dëkkandoo ñooy ñëw njëkk taxaw bu dee fay la ñu fayal la ko même boo fi jógee dee say dëkkandoo ñoo ñëw njëkk taxaw dugal la si jàkk yi di la toppatoo balaa say mbokk di jóge ci li nga xamante ne mooy dëkk dëkkaat yi kon dëkkandoo nekk na lu am solo la kon li mooy li nga xamante ne mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma la ko waxee woon ci émission bi passé rek waxu yonent bi dañ cee war a bàyyi xel ndax moom du wax ngir bakkanam lépp lu mu wax la yàllaa ko ko wax loo te sama papa day faral di wax naan bés penc nekkul bés penc ñëpp fay daje yow mi nekk Sénégal bésu penc ki nekk Amérique yéen ñaar doo leen gisante bés penc mooy ki nga bokk ak penc mooy ki nga xamante ne yéen a bokk koñ bi yéen bokk li nga xam mooy dëkk bi bés penc yéen a bokk waaye ku nekk chinois bi ëllëg bés penc doo gisanteeg moom fenn kon lii lañ leen indiloon ci xadisul yawm yax wa axiru daawaana alhamdulilahi rabil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه